mag yooyu nag li ñu bàyyi fii fekkee loolu doy na bu mu yem ci sa dam mi na yegg ci jëf sa jëf na wane ne boobu doy na la boobu fekkee nag da nga war loolu yëpp nga ne yow da dem beneen réew wuti fa leneen na nga xam ne ñii jóge Sénégal jàng fii Sénégal yaroo fii Sénégal bi ñu demee ba génn ci biti yooyu nekkoon ci biti ñoo leen topp ko ay taal yàlla jël leen def leen seen i sang te jàng ñu fenn professeur léegi am na ñoo xam ne tukki rek boo demee Arabie Saoudite léegi wala Koweït wala fenn guddal sa sikkim tuuti parce que boo mu taxaw rek door sa verre rek nga ne waajaa jikko moo nekkoon adresse su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka illa mutammima al axlaq innama bu'itu li utammima makaarima al axlaq ci jikko yàlla ñu koy tàkk ci ko tàkkee ko ci xam-xam innaka la ala ci jikko yi rafet jikko yi rafet ci maam yi ko jëlee ci sëriñ yi lañ ko jëlee ci sang yi lañ ko jëlee jëlewuñu ko ci sëñ naa ne nag ñu ngi ñaanal réew bi xam na ne xalaat yu bëri ñu ngi ci biiru gerte yi ñu yoon waaye bu dee tax yëpp dina jàpp yëpp dina dem ñu ngi ñaanal réew yàlla def ci jàmm ne bu dee jàpp na ci dara. alhamdulilah. bërëb bu nekk. yàlla defal na ko ñi nga xam ne ñoo tax mu daal. Hmm. Sénégal daal rek mooy. amul leneen lu ko fi yëkkal. waaye nag bokkuñu fitna ci yeneen réew yi ñu jëlee. bu ñu bëggee nag mu bañ yëg si ci ñun. nañ ñaan yàlla mu jëlee ko ci réew yi wax. yàlla jëlee ko fa ngir jàmm mu te dinaa mën a wax itam wax bi nag chauffeur yi ñoo ko moom chauffeur yi ku nekk sa wërsëg bi la yàlla bindalal di nga ci jot nga yàkkamti bañ a yàkkamti du tax nga ëpp ko du tax nga ñàkk ko kenn mënu ci nag li la yàlla bindal moom rek ngay am te li la yàlla bindalul doo ko am da ngay sonal sa bopp kon nag chauffeur yi daf leen nag ku nekk yàlla na yàlla dellu si sa dëkk ak jàmm jàmm yóbbaale fa jàmm. Ah. nee na chauffeur bu nekk yow yaay sàmmkat ñi ngay yëgal sa bopp nag dinañ la ko laaj kullukum raa'in wa kullu raa'in mas'uulun 'an ra'iyyatihi yii ngay foog ci sa oto ëllëg ñu laaj leen ko dafa nag ay jullit lañ ñoom ñëpp dañu fees alquran fees su nekk dafa nag rek lu la yàlla bindal wallaahi ñu ko xam kenn mënu la ko xam nee na Seydina mi ngi gërëm ñi nga xam ne dañoo jógee ba Mauritanie. yàlla na yàlla fay leen yiw yàlla yàlla gërëm leen kontaan nañ ci ñoom bu baax. ñoom ñoom itam yàlla xam ne seen aajo yàlla yàlla fay seen aajo. nee na Mauritanie suñu réew la suñu mbokk la mënuñu wax Sénégal ak Mauritanie benn la rek waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla def fa jàmm. yal na ko yàlla saxal jàmm bi cheikh nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam gam yi itam xam ngeen gam bi mooy nu mu leen ci Sénégal rek fokk ñu ñaanal leen yàlla si ko saxal jàmm yàlla na yokk fa koom-koom ak naataan ak dal nee na alhamdulilah rabbil alamin ak bu nekk waa gam bi ñu ngi gën a yokk di gën a yokk di gën a yokk ren moom Seydina balaa muy dem Saalum fële walillahi alhamdu shukr man xam naa ne xol sedd na ci waa Gambia yal na yàlla gërëm waa Gambia seen président bu bees bi ñu am euh, Adama Barrow yal na ko yàlla dimbali yal na ko yal na yàlla dajale kàddu yi ci gannaaw yàlla boole seeni sàpp yi ci gannaaw ba nga xam ne Gambia am koom-koom am naa bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañ ngay dem ci jàmm fekk fa jàmm incha allah. ñu ngi nii nag ki moom tànn ñu ko waaye yàlla ko tànn def ko suñu xol. koo xam ne toujours ak bu nekk mi ngi mooy ki Alioune Badara Sy doomu suñu waajur suñu soppe suñu lépp. Hadj Abdoul Aziz radiyallahu xam nañ fu mu nekk fu mu jóge sori waaye dafa bokk ci néeg boo xam ne daal dañuy fu leen fekk rek fekk nañ suñu bopp ñoom fi ñuy fekk fekk nañ seen bopp bu leen gisee suñu toogaay ñu fii foog mu yóbbu ñu ci waajur yi te fekk ñu ngi fàtt ñu ngi fàttaliku waajur yooyu ñu ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu dox ci seen ron ba fekk si leen ëllëg incha allahu taala ak ñu mën a def jazakallahu xeyr jazakallahu xeyr waaw seen naan nee na mi ngi gërëm itam député jiko suñu xarit la suñu lépp la day taxaw ci kër gi lu kër Cheikh Tidiane soxla fële ci Dakar moom mi ngi fii Koungheul waaye bu ñu ko woowee téléphone mi ngi taxaw seen naan ñu koy gërëm di ko sant nee na bu moom fàtte na kenn na ngeen ko jéggal waaye xam leen ne Cheikh Tidiane fàttewul kenn